asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat dellusi ak yéen ci yóbbalu bés bi lépp loo lekk rekk lu mel noona ngay jëf boo lekkee lu lew jëf-jëf ju teey boo lekkee lu araam jëf-jëf ju araam boo lekkee lu lënt jëf lu lënt boo lekkee lu lënt jëf lu lënt ñoo ngi ko toxalee nag ci téere buñ naan fatxul mën naan sëriñ Touba wax ko fa jërëjëf sëriñ Touba maam Cheikh ibra